kii euh, kii euh, ma la tàllalal tey mooy Soso Thiam Soso Thiam euh, ñëpp daan nañ ko dégg mais mujj gi fi nekk nii gis nga si lu mujj lu baax la mujj fi nekk nii day mi ngi waaj ubbi ubbi loo xamante ne fii si Liberté 6 loo xamante ne incha allah inauguration bi di ngeen xam lan lay mbébét Soso nuyu naa la. man lay fay mhm. mhm. Mhm. maa ngi lay fay bu baax. maa ngi doon ziar. Ah, ah. Soso Thiam nga ñu daan daan dégg. fu ne. dem nga fu ne fu ne kii nga ko naan di sosoo sosoo nga bëri woon coow torop mu jigi kenn déggatu la mhm. lan moo waroon loolu làqatu bi non xam nga àddina moom mhm. ñu naan coow jugul kenn mhm. et que da ngay dox da ngay ngay dox da ngay bëgg après reculer pour mieux sauter mais dara lépp ci lu ñu nekkoon ci suñu liggéey ci suñu business ci suñu lépp rek ñu ngi si woon di ko def si sutura di ko def ci jàmm moytu lu bari bëri macha allah lan moo waraloon tur kenn xamul ndax man du ma woykat macha allah du ma lenn loo xamante ne rek Euh, dañ naan kii mi ngi ne mais yàlla mooy dogal peut-être ci jaam. ñu ne kii diw loolu kese la. mooy waykat yi daan la way waykat yi ñoo la daan way wala. non non garaawul ne loolu moom page boobu garaawul. ah ok ok nga làqatu woon mujj gi ñu jékki uh-huh. ah, ma gis la si beneen facette boo xamante ne. waaw facette bu baax la. facette boo xamante ne jigéen ñi tey jigéenu Dakar tey jël nañ ko. Uh-huh. mooy jënd ak njaay. mooy jënd njaay man moom ba mooy. juddoo ba jàng ba ñu teg ma ci liñ ma war a teg macha allah damaa topp sama paawu yaay. Mhm. nekk ci depuis boobu ba tey ku ma xam xam na ni Soso ba mu dalee jaay ba tey yàgg na macha allah. Mhm. yàlla nag moom moo ko dogal parce que chaque fois chaque fois dinañ jéem xool lenn lu ñu tijji pour entreprise pour gën a développer suñuy liggéey. Mhm. mais yàlla mi ngi koy doog a dogal. te ñu ngi ci sant bu baax. nii la ko yàlla tuddee. macha allah ni ngi si ñu ngi koy doxal comme ni nga ñëw gis nii ñu defar ko allah xam defar nañ. nee nañ place dafa seer ak fi ko ubbi sax. Mhm. est-ce que ah, yomboon na si si si sa kii. mais sant yàlla rek. Mhm. sant yàlla bu baax rek may mhm. sant yàlla. kan moo la ko yombalal euh, ministre de la jeunesse wala lan ak lan wala sa fond bopp. liggéey macha allah. jeex na tàkk. Euh, euh, bërëb bi kañ lay ubbi ak lan ak lan ngay. bientôt na ko ñëpp pare macha allah ñi dinañ jaay. jigéen laa doon jaay wax dëgg fa yàlla des fois ma def quelques góor mais nii moom dama ñëw ak doole mhm. maanaam tuddee def unisexe di jaay góor di jaay jigéen lépp lu baax di qualité lépp rek nañu xaar sa style bu bees tàkk incha allah future bi nag jaan dañ ko jàpp si 4 à 3 jours 5 jours def dernier réglage dernière finition yëpp incha allah jox ñëpp seen carte soutien seen carte sori seen carte d'invitation ñu ñëw si jàmm ñu fekkee ko si jàmm di woo ñëpp nag mhm. ñu jàpp si parce que ñu bëri samay nit lañ kon maa ngi woo ñëpp ñu ñëw jàpp si def ko seen ay bis comme ni nga ñëwee nii def ko comme sa bis macha allah. ah nga koy ah, tuddee maanaam ay. non man tuddeewu ma kenn wax dëgg fa yàlla ñëpp samay nit lañ. Mhm. woo naa ñëpp rek. lan moo tax loolu. non jarul tuddee parce que ouverture boutique jarul ay tuddee macha allah na ñëpp ñëw ñu jàpp si. présence bi rek moom moo gën a lépp ci àddina na ñëpp ñëw képp ku ma woo rek yëkkati wax la ko rek je pense que di nga nekk sama nit te dinaa la woo même bu nga xamante ne jotoo jotoo invitation sax soo mënee ñëw nga ñëw parce que. mais mënoo wax yan tur ak yan tur. am na xale jigéen yoo xamante ne. tamit sa eh, sa sa liggéey yi. non sama cliente yi daal woo naa ñëpp ñëpp ñi nga xamante ne vraiment dañu mës a fidèle à Soso. ñooñu moom mention spéciale di woo ñëpp. tuddeewu kenn di woo ñëpp laay woo mbay incha allah woo naa ñëpp. ñi ñëw bu jour bi jotee di nga ñëwaat fii ñuy communiquer date bi ñëpp ñëw incha allah. jaajëf ah, ah, jaajëf Soso. waaw ah. <laughs> fii la euh, place baa ngi xam naa euh, si biir semaine bi incha allah di ngeen si am lu leen leen incha allah. تقبلنا بأبي وحجتك وتطهرنا بها من معيصيك وترفعنا بأبيك على درجتك وتبلغنا بها أحسن خيرك من جميع الخيرات في الحياة الأبد لو لا إله إلا الله يسجل mi ngi naan li ma am sax moom defe na vraiment nijaayam ñëwul ma jërëjëf vraiment kontaan naa ñu bëriwul la baax rek yow bu bëri ci dëgg ak ñi ngeen demee ñu sañoon sax dañu gën a yàqu mais daanaka boo ko wax démb rek fekk na fii sama mbokk yi ñoom benn fii am alijo rakam di gën a mat ak mu jot premier safar te ñu ko ñaanal ci daal ci loolu gën a mat ñu ñu wax ni vingt heures ñu jàpp ay ñoom ñoom ñoom ñuy kenn si yaram moom mooy suñu sëriñ Gitu. si moy ci la ce jam euh ini unigré أن السراد المستقيم وبزعيم كلنا بلا سليم دين جميع أن السراد المستقيم وبسليم كلنا بلا سليم لك رداب يا غريب يا مجيب يا من به لسمني خير عجيب أمري وللذي لا دعنا بيا هدى به لخير له إياك لا بد ولا زين هذا سراج المستقيم قبلنا هدى به يربطنا من حولنا هذا سراج المستقيم قبلنا هدى به يربطنا من حولنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا غير رب